dës di xew-xewu jamono ci biir quartier di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur dës ak Ahmed ay man de wey naa laay yoo de baaxul waay. mun ci salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci dama koo mere. dafa indaale sama noon bi tey. noon la. on laa am ci àdduna maam Sidi Diop. te damaa bëgg suba teel gi fajar gi muy dugg ci car rapide yi rang-rang. ci li nga def tey metti na ma. loo ma mës a jëndal ci parfum fàtte naa ko tey ndax sa jëf ci. Mm. soxoraale noonu. manta la mais bi ma may pa fongo neex bi mu tudd sama yaay saan samay yaay ji caam sa yaay seen bu caam waay caam caam yàlla na yàlla fay mu sama papa mbay taal woon udd udd ma jox ak a baax man de bu sedd jotee rek samay pot samay pot cuuraay ah. benn du ci fer moom la ñuy wax udd moo dama ne Pauline sama yaay li may may ci cuuraay du la ko may nangu naa ko ci yow yàgg na yal na yàlla ak baax laaj. yal na yàlla fay sama yaay. yàlla sama xarit. yal na yàlla sàmm sama confidente. sama lépp di ma orienté. yàlla ko ci kanam di ma sëyloo. di ma uufloo njaboot. ak a baax. yal fay. ak a baax. am diine. am lislaam esprit d'écoute. mën a orienté. man kenn du sama yaay ji ci am. Mantoulaye ministre de l' intérieur. <laughs> waaw tey ministre de l' ngay kaa fii ci tës bi. Antoine Félix Diome. xaaral ma jóg ko fekkee. ba mu demee Tiwaawan ci gàmmu gi paase. bu ko fekkee. dafa jàng benn aaya. bu ko fekkee. bu am solo. jublu ci jàngale jikko yonente bi. alayhi salaatu wa ministre. Hmm. aaya ba. eggale woo ko da ngaa wax rek fa bi ma rahmati min allaahi linta lahum walaw kunta fazan xaliza al qalb lan fadu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum wa shaawirhum fi l amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha la yuhibbul eh, inna allaha yuhibbul mutawakkilin moom nag dafa rek fa bima rahmatin min allahi linta lahum fa la yam yàlla ni yonente bi man yàlla mi la connecté yërmande man yàlla maa la ah, connecté yërmande mhm. mu fees dell ci sa xol mantulaay ci nga yërëme ñi la wër sa entourage mhm. ci nga ñeewante sa peuple ci nga ñeewante say étudiant mhm. ci nga ñeewante saw askan ci nga ñeewante say opposant ci nga ñeewante say commerçant ci nga ñeewante say baana baanakat ba tax ñu ñimee la foo toog ñu toog ci sa wet dëgg yàlla ni yonente bi. alayhi salaatu wa salaam. wala kunta fazzan. xalisal mhm. bu sa xol wawoon nga ni deng kenn du la ñuux kon ñoom du ñu la ñuuxu waaye man yàlla maa la connecté yow man sa xol wawul nooy ñu jige la. Mhm. Mhm. yàlla ni ko kon dee leen jéggal. te di leen jéggalul yàlla. la ni yonente bi dee leen jéggal te di leen jéggalul waaye nag. bul jël mukk décision te neexuleen leen wa shaawirhum boo bëggee jël dogal ci réew mi boo bëggee changer loi boo bëggee yokk mburu boo bëggee yokk ceeb boo bëggee dàq liggéeykat bu amee ñuy manifeste ndax licenciement ndax ndax détournement wa shaawirhum fil amri del diisoo ak ñoom monsieur le ministre aaya bii de yaa ma ko fàttali dama doon seetaan sa vidéo rek nga cof aaya bi ma ni aay bi na daa jara eggale daa jara eggale dégtal leen ko yéen fàttali leen ko démb day li am ukaat jar na wax yàlla ni li am ukaat woon la jar na wax taalibe yi duñu la ñime étudiants yi du ñu la ñime opposants yi du ñu la ñime commerçant yi du duñu la ñime waaye maa la def nga nooy xol léegi nag monsieur le ministre jikko jooju nga ñu fàttali ni moo ne ci bi ba tax nga jàng aaya ba commencé ko te yëggale ko ko ñu bëgg nga yëggale aaya ba wa shaawirhum fil amri booy jël décision del diisoo bu ngeen dee soppi carte électeur dee leen diisoo bu ngeen dee soppi carte de euh, euh, d'identité dee leen diisoo mantulaay mhm. bu ngeen dee soppi permis dee leen diisoo waxtaane ko boo leen dee yokk njëgu palaagu oto dee leen diisoo dee leen ko waxtaane ak ñi nga ñi ngeen ko séqal boo demee ba jël décision nag waxtaan mooy defar boo demee ba jël décision nag ni faaw ma def lii parce que mooy solution bi fa sës fa tawakkal ala Allah fa fa iza azamta fa tawakkal ala Allah na nga wàkkiirlu ci yàlla nag faaw muy décision bi ma jël pour sauver Sénégal. xalaat de yaa ngi waaraat émission bi. te booba circonstance la rek Mantoulaye. yaa ngi waaraat émission bi. bu fekkee dañu ni bu fekkee dañu ni ah euh, ndoxum ndoxum ndakaaru daa xonq waaye li ko xonqal nangam la continuer leen root ndox mi xelli xelli tout la journée ñu ne ah kon suñu rigole dina fees de ah kon suñu fosse dina fees de ah facture ba. waaw mu ni du ma ko dagg ci facture bi mais assumer leen ndox mi xelleeku ndax ndox mu xonq mu tilim mi jeex ngeen amat ndox mu weex mu ngeen naan décision la force doo ci kaw taabal ji nanga nga ci yàlla ndax yàlla moo lay dimbali te mooy jàppale képp ku dogu ah monsieur le ministre nag aay bu nag dee leen ko jàng yéen gouvernants yi dee leen jàng aay bi te di ko tekki yéen gouvernants yi dee leen ko firee ci kanamu njaboot gi te ngeen koy jëfandikoo. ubbi leen dënn yi te yaatal Koumantulaay. wallaay li am université doy na waar. dem démb doy na waar. xale yi ñuy gazé doy na waar. ba ci biir. ndox mu xonk mii di xale ci robinet yii nga xam ni danger public la doy na waar population dañoo war a jël ndox mi. tànku ko TS2 la nga doon wax ci douche ma euh, Seno la nga doon wax ci douche marché dafa mel ni moo am de. kenn du leen tudd. kenn du leen tudd. Seno kenn du leen tudd. gis nga ndox mi ay benn benn journaux ngay gis ñu ciy ñëw. maa ko wax démb démb nee naa waa seen TV même yéen da ngeen a échec. ci journal commenté bi nee naa leen yéen ay coupable ngeen. kenn du leen tudd. bu ngeen demee ci li xew ci danger bi ndox mi mii quartier lëmm dëkk capital di xel ndox mu mel nii toute une journée amul benn reporter bu ngeen fa yabal bokk ngeen ci ñu ko cautionné maa ko wax suñu rédaction ñun. Hmm, ni leen tey waroon nañu ànd dem si xool ndox ma fa muy xellee Mantoulaye ànd ak ku farlu ku mel ni Mantoulaye tànq ndox ma ànd ak moom dem laboratoire ñu def prélèvement xool yan musiba moo nekk ci ndox mi. dëgg la ñu xool musiba yooyu yan xeetu feebar lay joxe ñu xool ñan ñoo am xeetu feebar yooyu ci quartier yooyu ci moment yooyu. dëgg la c'est vrai. c'est vrai loolu loolu liggéey loolu loolu loolu mooy. ak lan la mën a indi comme conséquence seen wér gu yaram. fii ak c'est de l'art journalistique. ay fii ay mois wala ay années yu jëm. c'est ça. mun na bañ a kii seen yaram léegi nii. waaye toog fi nga toog rek. ñu ñu jox la ab demande de couverture. démb am na ko ne man de comme attaaya laa doon sangoo. Ah, dem ci hôtel ba ñu jox la euh, boisson nga naan petit déj waaw euh, planification renforcement de capacité jigéen ñi am position place ci décision euh, fi ñuy jëlee. ay Mohamed Diaw foofu la jëm nii. ci ndox ba te lay reportage. ñun moom ñun moom ñun moom falaaw quoi. plateau tis moom fa laaw quoi ñun lu métti askan wi lañ koy jooy. Mohamed non Mohamed Diaw pour rédaction demal na fa rédaction bi. yeex ngeen. waaw au moins moo tane. Mohamed Diop man. Mohamed Diaw. Mohamed Diaw caméraman caméraman waaw dafay ànd journaliste. ban journaliste xaw ma ku ma àndal xam naa am na ku ma àndal. bu leen ko booleeg reporter ko ku taxaw jël ku mel ni Mohamed Diop wala ku mel ni Fatou Abdou Ndiaye wala Fatoumata Diop. ñu yàgg ci ñu ñu ñu ñu expérimenté wala man wala mantulaay bu leen fa yónni kenn bépp télé wala rajo. ñëpp laaj mu ànd ak ñoom ay nanko yu nu saa. waaw nanko waaw kay zone boobu. képp mhm. ku sëgg teg sa tànk bépp journaliste bu sëgg teg sa tànk. Philippe Pandewoli waa SDE def quartier yooyu ak ndox mi ñu xelli sans compter ndoxum foos mi doon xelli ca euh, di xeeñ foos ca parcelle pendant deux semaines. ak Grand Yoff. ak Grand Yoff côté yooyu yëpp. man de lay ku ñoom caaro ñooñu ñii ñoo njëkkoon jël. ku ci sëgg complice nga. mais la moo tax ñu koy def zone par zone noonu. moo jaaxal ñëpp. Hmm? moo jaaxal ñëpp. Ah, moo jaaxal ñépp doy na waar de. waaw ci doy na waar de. te ku wax dund. <laughs> te ku wax dund. Ah? Ah? di leen ci wax. Malick Wade maa ngi bu baax Adrame Diop merci beaucoup. Pape Moussa suñu suñu suñu naataango pam Moussa Traoré bu tribune moom waajuram bu góor moo fi bàyyeekoo. Baye Moussa bu laay ndeysaan waaw tey lañ koy saraxal ci Kër Massar ndeysaan donc ñu ngi ko koy jaale pam Moussa ci sama tur ak turu allah jeeg Chumé. ñëpp ak groupe Teuss waa kër gi yëpp ñu ngi lay jaale groupe bi yëpp. dooree ko ci président Bougane Gueye ba ci suuf euh, ba ci man mi donc ñu ngi lay jaale bu baax a baax a baax Pape Moussa di ñaan yàlla xaritu ñëpp baax jovial bëri kersa ndeysaan man rek maa ko sonal ku bëri kersa la ku baax Pape ko sonalee la ma sonalee ndeysaan Pape Moussa gis nga gis nga noonu la fayu la da dama da ma sonal dama la sonal alaaji dem nga sonal alaaji yeewit <laughs> ndeysaan Pape Moussa ndeysaan ku baax la alaaji ku baax yàlla ñu ngi lay jaale bokk ak métit bi ñu la koy ñu koy bokk yow di la masawu di ñaan subhaanahu wa taala ko aljana ya gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sangu-sang yi yàlla na ko yàlla xaare aljana may la xolu yàlla na la yàlla may xolu ba Moussa ku baax nga wax dëgg yàlla Abdoulaye Sall Alaaji ne dafa fàtte benn sac boo xam ne am na ci biir benn ordinateur portable benn livre ci benn taxi euh, ñu déposé ko ci monsieur Sarr Wakaam euh, mercredi vers deux heures du matin euh, soixante-dix-sept 579 86 87 moo di numéro am mm-hmm. Fallou Mbaye am 13 ans nee na euh, dañu ko gis Fatou Fatou Sakho xaw ma mm-hmm. yaayam ay dëmbu papam góor Mbaye mbay na dañu koo for foog na ni ko bindee fa mais ne fu dañu koo for 77 113 64 65 mooy numéro bi Habib Diankha nee dafa réeral euh, benn sac bu marron am na ci biir benn ordinateur portable benn iPhone 6 plus ak plan maison ak na permis de conduire ak passeport ci benn bus ku gis papier Habib euh, Diankha bi nga woote ci 77 807 63 05 di leen fàttali Expresso moom moo leen may seen émission Teuss Expresso bi nga xam ne euh, boobaak léegi euh, ñooy ànd ak moom ci émission bi baax lool ak borom forfait buur bi a am plus Expresso nag tey tax seen connexion alaaji yàgg lool ngeen dugg ci YouTube bi seetaan seeni film mhm. seetaan li ngeen bëgg ak ay seeni vidéo yi ngeen bëgg te daanaka seen connexion du bouger Expresso aussi dafay ay crédit yoo xam ne da ngeen di woote ba doyal rek di laajte kañ la crédit bi di jeex te du jeex. ñëwante lay. sakkan na lool bari na lool. te yomb na lool dem leen uti expresso canal plus aussi alaaji moo leen demee seen émission tës bi canal plus nag dafa ñëw ci mois de décembre boo xam ni daanaka ay folie dong lay def moom bu mois de décembre ñëwee euh, ngeen gis gars yi yore parabole yi yore li nga xam ne mooy décodeur yi bu leen hésité jënd leen ci cinq mille francs lañ leen koy jaayee ko defee parabole bi ak installation bi gratuitement lañ leen koy defal agence canal bu ngeen dem aussi di ngeen mën a am lii ma filim terewul boo leen amoon canal plus ngeen abonné waat ci mois de décembre bi jours tout canal lañ leen may maanaam 15 jours nga xam ni canal yëpp ngeen seetaan te daanaka li doon fay doo ngeen di fay daw leen ci agence canal plus bi leen gën a jege ngir profito ci promotion bi nga xam ne amal nañ ko décembre bi te canal nag day neex Boxing Day bi mi ngi ñëw. ah ci mois de décembre bi film Noël yooyu nga xam ne day am neige dama koo bëgg alaaj décembre lay am ci canal daw leen. film film neige alaaj damaa bëgg film neige damaa bëgg neige. ci neige ba. waaw léegi ku ma yóbbu ci neige di ma gis neige. Ah, bëgg gis neige. demal seeti neige demal Suisse <laughs> Mantoulaye ñun ndox mi ñuul la ñuy wax lu ko ñuulal ndox mi ñuul la ñu ne ba ñuy xumaag làmm lu ko ñuulal luñ ci def. alaaji dafa bëri histoire ba boo koy wax luy neexal xol mu la yóbbu. waaw yow. ndox mi ñu. alaaj damaa bëgg a dund neige mosuma gis neige. waaw yow neige man du gis naa neige. ah alaaj man gisuma ko. gis naa neige gis naa ndox moomu di xellee ko ci kaw xeer yi ma taxaw di ko seetaan. waaw alaaji na alaaji na alaaji na war dëgg yàlla nag alaaji na war dëgg yàlla man gisuma neige. waaw grande coalition gëm sa bopp ña nga ci tournée delloo si yaakaar ci waawoon ak Mbour ah. ñoom nag. saa leen leen jàllalee ñu andi leen jafe-jafe bu bu bu séeju ba yooyu maa ci topp di jàllale rek problème yi ñëw bàyyi ma jàllale rek ndax jàllale bi terewul tournée ba am na. bu ñibbisee. Hmm. na defar suppu ginaar mais nag ginaar ginaar local lay doon. da ci tege dege. ginaar waaw ginaar local bi mu toggee ko ak gerte wax na ci tooy man man mii sa fan yi maa ngi bëgg a toggalu fan yi fan yi damaa xuloon askan wi ci mburu meeg ndoxum ndoxum robinet mu xonq mi ci ñuul ak. El Hadj Thierno Dramé Alaaji. Euh, yow nee na nee na film neige bi wax moo ko jàppalee. <laughs> sama frère boobu fu mu nekk. <laughs> Cendrillon. Thierno namu naa la de. damaa romantique nag El Hadj. waay bàyyi ma waay yow. film neige dama ko bëgg. alaaji bizarrement dama bëgg film neige. alaaji alaaji gis nga ay yi daw 13h nii jamonoy décembre ay TF1 dama koy seetaan alaaji ndax bëgg film neige man damaa bëgg neige de booy fa neige ba am noonu waa alaaji musuma gis neige bàyyi ma rêvé neige damaa bëgg neige seen boo voyager moment boo demee Suisse nii nii nii nga fa fu ma jëm Suisse am na France am na Italie am na Canada am na États-Unis ah nii nii Norvège ah demal te ma dagg billet foo dem am na neige yaa ma bàyyi ñu ngi lay nuyu ak yaa ma bàyyi demal Jibril Kara maa ngi lay nuyu. mais balaa ngay dem na nga fexe ba seen ndox seen ndox bi ne di xonq la ñu bàyyi ndox wax nga liñ ciy wax ba pare mënoo cee yendu ma ne tourne delloo si yaakaar Tiwaawan ak Mbuur la <laughs> jeudi bii département bu Tiwaawan Njaasaan commune bu Chérif Lo ca Pambal noota Guy Jama Daaru Xudóos ba Njaay ak Mbooro dimanche 19 décembre département bu Mbuur Fisel Saly Portudal Alaaji Mansour sa koñ la Somone Popenguine Sindia ak Diass. mais dégg ma leen campement nga xoox. ah binduñu ko ci de. kon dinaa 77 702 81 83 mooy numéro yi. kon dinaa leen cette fois ci xam nga commandant si bi e. <laughs> laay wax ne ko bu ngeen jaaga foofu e. <laughs> Kara Gore maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. dëkk bii moo ñàkk amee <laughs> dëkk bii moo ñàkk amee. El Hadj Ndiob Dramé fi mu toll nii yàq nga sama émission la. bu am liberté am di dox nga ne ko doo ci dëkk bi. amul benn raison bu tax nga ne ko doo dugg ci dëkk bi. wallaay ñu ni déet waay way takk der bi ni tiire leen ci seen kaw. Alassane Balde jéebaane ko wax ko ci rajo mu taal otom ni fes daw ku ko sant moom itam. Hmm. ak ni ñu amee valeur ci dëkk bi ñoom. yéen du leen ay politiciens yéen nit ñee bëgg ci doomi réew mi ngeen bokk di di assurer suñu sécurité. yéen ci ñun ngeen bokk. bokk leen politiciens yi di soppeeku. nga xam ne ñu doon nañu socialiste daawaati jékki ñoo nekk liberal yi tey ñooy nekk suba ay ay gauche yéen ay patriote ngeen <laughs> yéen da di kaas ndox mu ñuul mi xeli ci robinet yi ah non bu leen def noonu waaye ngi retaan El Hadj Thierno Dramé ba <laughs> nga tey na ku mën a ree El Hadj Thierno yëngal nga tey koo xam ne dafa mën ay ree te damay émission may ma rek fii ak 10 heures ma pare ñu àndandoo ree ko. non c'est que yow c'est que Mantoulaye yow c'est que yow. dama romantique. waaye benn ma jàmm loolu yow mën ngaa juddoo Cambérène a lu romantique yow ñu juddoo gis lu romantique yow. alaaj ñu juddoo Cambérène du ñu romantique. non yow alaaj nag yaa ngi tutoyé de. non yow loo gis lu romantique. yaa ngi tutoyé sama waa gox de. yow loo gis yow yow yow wuy lu mhm. ñu ngi gis romantique gu amoon xëy si nga amoon lan. kan. amoon xëy si. ah. la damaa romantique nag man. yow gis nañu ne looloo ma sonal. booy Sénégal hmm. booy Sénégal bi bind fan yi dëkk France nu mu tuddati. Mbugaar. Mbugaar ñu gis ñu ñu gis. Mbugaar man looloo ma sonal romantique. ma sonal lii. ñun ñu gis fi Mbugaar yàlla baax na ñuy wax ay romantique. ndeysaan yàlla hmm. baax na daf ma sonal. yàlla baax na alaaj suñu tasu démb bi la ñuy ñëwaat. <laughs> yaa ngi dégg. waaw. suñu tasu démb bi. alaaj hmm. ci la ñuy ñëwaat. mooy xombol bi. <laughs> ñu gis fi ñu gis fi romantique ba dem ca géeju Cambérène nga rey fa gilee moom. Hmm? invité Mantilaay ay xaritam ñu lekk ci yàpp boobu mënatuñ soo lekk di ko sànnante. uniquement uniquement uniquement ndax bëgg bu ñuy ñibbi uniquement bu ñuy ñibbi Mantilaay togg ko ci gilee moom. dégg nga wax de. déggu ma li nga wax moo tax man la tu n'es pas romantique da ngay sóob rek yow. li wax de dégguma ko nga ne. waa ji daa invité ñoom Mantoulaye cousin am la Mantoulaye ànd ak xaritam ñu dem ci tefesu Cambérène. Mm-hmm. foofa bari ay booyu sport ñu tuxu dem bu yoof mm-hmm. foofu bari ay nit ñu jóge fa dem bu Soumbédioune foofu bari ay nit ñu dem ci ginnaaw palais noos gi ñu gis ni yàpp daa manqué mu jël gëléem gëléemam rey. te diggante bi muy ñibbi tànkam mënu koo dox buy ñibbi faaw mu am gileem gu mu yéeg xale yi noos ci gileem gi ba bëggoon mënatuñoo lekk yàpp ñuy fawe yàpp wa soppi yàpp wa ay bal di ci promenade ba ñàq ñoom ñëpp ñëw sangu ci géej gi a ñibbi te Mantoulaye la fi am comme cousine te faaw mu ñibbi te mënut a dox force dina yéeg kon ci gileemu Mantoulaye. looloo tax mu rey gileemam. je weesu naa foofu. je vais nommer Aroune Xays. weesu naa foofu. yow maa xaatale. bu rey gileem nii fa yaa ajaban min ko hal alaaji weesu naa foofu yow romantique o alaaji damaa weesu foofu ñi romantique nag ñi nga xaw ma ñoom ñaar na ku ci gën a romantique mooy bu démb bi ñaar nag ci version lañu ñu am mbaytaal xuma ñu ngi koy jaajëfal bu wér benn version bi ab soxna moo ko wax dañoo changé voix am sonalaate naan man lay wax dëgg. film neex film amoon la dafa neex. dafa xam na fi may waxee ndeysaan dafa neex. ak neex. Euh, alaaji version bu njëkk bi. Mhm. peut-être damay bàyyi ndaw si mu wax ko moom. ndax démb fii am na ku la woo junj ko fi. Mhm. ma ne nañu bàyyi mu sedd. Mhm, mais comme mbaytaal def na enregistrement bi nag dañuy jàllale nit ñi jugeel seen bopp mais beneen version bi. bu bi nga xam ne dëkkandoo bi moo ko wax. Mhm. dafa ne. Mhm. waa ji. moo fekki. moo fekki ndaw si. te yàgg na ko menacé. te moo ndaw si yàgg nañu ànd ci commissaire. xaw ma commandant. mu koy kalaame waa ji ne waa ji da koy menacé. borom kër gi mujj bi nee na day génnee ndaw si ndax problème yu bari yoo xam ne waa ji da koy ñëw di ko ànd ci biir ndaw ci biir kër ndaw si te divorcé nan yàgg na. waaye ba ñu tàqali ko itam ndaw si làqatu ji na dem dëkki faneen certes. ndaw si dafa dem dëkki feneen. waaye est-ce que bàyyi woon na waa ji itam. Euh, am na ku ne bàyyiwul waa ji mooy version bu njëkk bi ma ne la du ma ci sori. di ko yónnee nataal ak yooyu. waaw wax nañ loolu mais dama ne la version boobu ma ci sori parce que deuxième version bi. bii itam doo ci sori nag. xam nga moo dama la deuxième version mën naa ah, naa ko chapeauter. kon ma sori ci bii. waaw mën nga sori ci boobu yow boo dee jàpp nga fi ma jàpp dama ne. waaw waa ji wax dëkkandoo femme bi la. mooy des faits la néegam la ñu jamee femme bi man lii muy wax sañ naa chapeauté ko léegi nag ñaari version yëpp damay teg nit ñi damay duma ma du censuré wu ma ci dara dama teg ñaar yëpp nit ñi déglu seen bopp ay boroom xel ñooy déglu. ñoom ñaar ñoo kole. ñëpp ñoo kole. ñu déglu. parce que fa góor ki il paraît que doon na wane ay vidéo obscène yu muy sëy ak beneen góor di ko wan. ah bon. dañ divorcé woon. Hmm. mais da ko daan ñaawal pare moom moo poussé ku góor ki ba mu àgg ba mu def ko lool. lu atal vidéo la ko daan envoyé. non kan moo envoyé ay. ay ji ay ji femme jëkkër ji dañu divorcé woon. ok kii quartier bi bi dëkk. waaw. il paraît que def ay vidéo obscène di ko envoyé jëkkër ji ak yeneen góor. Oh. waaw loolu daal la ñu wax. mais kon loolu est-ce que. xam mais <laughs> est-ce bi mu bi mu am na bu ma seetaan kii waa ki wax naa ñoom mais ñoom xamuñu woon source bi moo tax xam naa seen question yi xaw ki nekk moom rek dafa ko dafa wax ak moom après passe ko femme bi mu waxal boppam. Uh-huh. mais xamul woon carrément ni. Uh-huh. da daal jël ay vidéo di ko envoyé. siis hmm. option yooyu moo poussé xale bu góor kon donc kon donc loolu loolu moo tax jëkk ji mu xaru. fekki ko fi mu dëkk waaw. ah kon jëkkër da koy rey da koy fekki fi mu dëkk pour rey boppam. waaw waaw. kooku jigéen sax na ko nee na seen histoire yàgg na mat na juróom-ñaari at. juróom-ñaari at. waaw mais xam nga rek di ko maltraité ak yeneen ak yeneen ba mu ba mu bi dem. topp na beneen quartier jël foofu nekk. léegi nag affaire bi nag oh, pap njëkk na ñëw ci kër ga. bala lii di xew mu wax ne. dina rey ndaw si yàlla def bés boobu mu am ay xale yu góor ñu dekk ak ñun ku mu fi fekk kooku mu sowe ko tey bu mu ñëwee dafa bàyyi ba ñun ñëpp ñu xëy moom mu ñëwaat fekk soxna si fu mu toog di defar ay yérem mu dindi ko ba nu ko yàlla bindee noonu laa ko fekkee bi ma ñëwee mu yor ay paaka mu di ko jam mu ne ko waxoon naa la ne dinaa la rey to tey keroog riccoon nga waaye tey doo ricc ci la koy jam ba mu daanu mu foog ne moom dee na moom mu génni mu daw mu dawee mu am fu mu daanu sama soxna nag la fa fekkoon sama soxna mu toll ci diggante moom tiitaange bi def ko jàpp ba moom laa indi ci clinique bi sama soxna ci weeram la nekk nii fu mu toll sama soxna pap wax ko ne boo génnul néeg bi dama lay rey comme moom noonu la affaire bi demee noonu la dem ndaw si mosu leen ndaw si nag am na lu ma ci daan luñ ci mos a waxtaan. tax euh, dañu fase wante bu mu ko fasee. bu waa ji ñëwee kër ga mu ne moom dana réew yi ndaw si bu ñu demee ñu def declaration bi ci commanda bi ndaw si toog waa ji keroog woowuñu ko ñu woo xaritam ku ñuy wax maget te mu yore kankayeri bi ñoom ñu wax ak moom ma ne ko c'est xes na boo wax ne dana ko rey man maa wax ndaw si ne nañ ànd seeg yoon am na ci dëkk bi balaa ñuy def dara ñuy dem ci yoon bu ñu demee it jaar nañ fu ñu war jaar atanka ànd naa ak ndaw si boo ci commanda ñu def déclaration xamal ko ne waa ji mu ne dina rey aadama pap mu ne dina rey aadama atanka ñoom ñaar du nekk ci dëkk bi aadama nekk ci dëkk bi ñuy bokk di deewoo xombol te moom mu fase ko mu ne dana ko rey ci la wax Adama ne man maa ànd ak Adama boo ci commanda ma wax ko lii ñoom ñu woolu ko mu ñëw ñu woo xaritam defuñu lu liggéey wax ñu ne dañ koy négocier borom kër gi it demoon na ba ne dafay génni Adama en tant que këram xamu ci ay violation commanda moo woo borom kër gi mu ne ko bàyyi ko ci kër gi dara dootu fi xew affaire bi noonu la demee. Adama euh, ah, euh, nag ay mbokkam lu ci ub Cees lañ nekk xam nga man itam xam nga ne dëkkuma fi liggéeyama fi indi yàlla def ñu am jafe-jafe mu ñëw ci kër ga keroog wax naa ko ci kanamu commanda am na ak moom juróomi doom bu mu ñëwee ci kër ga ba léegi Adama pap joxu ko dépasse dundalul doom yi dama ko waxoon ne man bu dee suuf la ñuy maq sama njaboot lu ñuy dunde ci ngay bugg di dunde leer na ñi taxaw fii yépp sama soxna mooy togg lépp laajuma ko dara dama ne ko su ma ci amul àdduna yomal xiyaam danaa ci am yàlla mbir mi noonu la demee. Euh, Pape nu oh. ci lu ñuy wax xombol lañ wax ne foofu la dëkk Euh, santam bi nag man miinuma ko waaye xam naa ne Pape la tudd waaye miinu ma nu sant. soxna si Adama Fall la tudd. Adama Fall gaañu euh, euh, nag foofu laa jóge léegi waaye bi ma demee man ak commandant bi ñoo ànd dugg ñu ne ma tane na bu baax atanka def ko jam fii jam ko fii jam ko fii jam ko fii. en tant que waa ji def ko waxoon ne dinaa la rey ba pare rey sama bopp xam naa moom xamuma lu mukk yi dafa foogoon dee na moo tax moom mu rey boppam affaire bi daal noonu la demee. sappoor moo ko jël ci kër gi kër ga it man mii dama ko tëj ne kenn du fa dugg lu dul ñu war yoon defa ñëw ba xool ba apparemment yu doog a defar kër gi waa ji bu mu daanoo yi ñëw na taxaw fa sappoor ñëw na ci la ko sappoor yi yëkkati booba ci kanamu gendarmerie yi la ñu dugal ko ci oto sappoor bi ci lañ ko yóbbu ci la yi dem mu ñëwaat ànd ak man ci kër ga ñu ubbil leen ñu xool tànka man sama néeg man ci sama bopp boo demee dangay foog ne foofu la ko bëggoon rey tànka bu ko jamee néegam dafa daw si sama néeg kër gaa yëpp deret la dema ko tëj nii bu la neexee nga dem nga xool kër ga affaire bi noonu la demee. Aïcha Aïcha Chimère laa dégg nga. Mhm. ñaari vers yëpp mi ngi noonu. maanaam soxna si wax na ci li nga xam ni moom la jàpp ne moom la ndaw si doon def waa ba pousser ko mu def lii li nga xam ne mooy dëkkandoo ndaw si aussi témoin des faits wax na aussi li nga xam ne waaj moom la doon dunduloo ndaw si mhm. ba finaalement mu jam ko ba jam bi ci biir néegam la ko eggalee ba ndaw si tërëf ba mujjee fu mu nekkee ni hôpital waa ji moom it daal di faatu mhm. Mhm. waa ndaw si ana ay mbokkam moom fa la dëkk ci dëkk ba ndaw si est-ce que xombal dëkk fa mu dëkk daal en tout cas locataire la fa waaw loolu ma jaaxal ay mbokkam ñu ngi xombal wala déet ay frère am ñu ngi xombal wala déet pourquoi waa ji ñu tàqali ko sept ans mu continuer ko menacer bëgg góor kii dëkk ak ak jabaram ni ko bu may lekk suuf sax nga ñu lekkandoo ko yóbbu ko police boobu yëpp ana ay mbokkam qu'est-ce qui se passe hmm. ki jëkk wax itam nee na te ki jëkk wax it nag boo demee ci li ñun li ñuy wax off off hmm. euh, Euh, daanaka bari na ay kàddu yoo xam ni ay version yu xaw a nuyoo ak ki njëkk a wax ñii doon na photo wu di yónnee waaj yi ay photo ay photo yu yu xaw a doy waar. ki njëkk wax sax dañoo changé voix ba pare. Ah. Euh, bugguma wax turam wala profession am. Ah. waaw explique mais mais ki wax. Mhm. maanaam mën nañ ko jàppee ab source. Ah. bu leer. mënuma wax nag profession bi te mënuma wax tur bi aussi loolu la moo tax ñu changé voix bi aussi boo leen remarqué dañoo changé voix bi ki njëkk ko wax mooy mooy waaw kay loolu la euh, en tout cas kii mujjee wax ndaw si Thiès la dëkk mujjee wax moo fekk fekkee ne ne nee na moo fekkee lépp non jabaram moo fekkee hmm? dafa xëyoon liggéey jabaram moo fekkee donc jabaram moo ko nettali loolu la wax de jabaram moo fekkee moom fekkee woon moo fekkee ma ni jabaram moo fekkee. waaw moom mais moom nee bi mu ñëwee fekk na ndaw si simmeeku ñuy sumbi ko ba mu set moom nee na fekkee na loolu. moom moo doon yóbbu ndaw si. moo yóbbu euh, ndaw si moo tëj kër gi. moo yóbbu ndaw si police aussi bu ko waaj daan menacé. waaw moom waaw waaw. nee bu ko doon menacé moo ko yóbbu ba borom kër bi di ko bëgg a génne aussi moo ko yóbbuwaat moo yóbbu borom kër bi commandant bi wax ci wax ak borom kër bi. pour borom kër bi bañ a génnee ndaw si kër gi ne ko. dootul ñëwar ci kër gi di la bi mhm. maanaam waa ji dootu fi ñëw def benn dégât. donc moom peut-être mën naa ni moom li mu wax dafa gis ndaw si am ci moom peut-être yërmande ak ay njabootam góor fekk ko foofu mu nekk mu koy jàppale ndax menaces yi mu doon jot. Mhm. doy na waar daal. Mhm, doy na waar daal yàlla na ko yàlla may tan sàmm ko. sàmmaale njabootam. Mm-hmm. Mm-hmm. may ko tam bu mm-hmm. baax a baax a baax ba mu delluwaat ci ay activité am. ndax nag koo xam ni nit day togg woo la say njaboot ngeen ñëw lekk su nekkee da nga tëdd ci lalu hôpital kon ça veut dire que ni yow ba nga nekkee ak say tànk ak say loxo di dox yaa doon mënal sa bopp ak say doom boo tëddee ci lalu hôpital njaboot ki nañ jaaxle. yàlla na ko yàlla yëkkati bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Chimère ku fi ne. te ndaw si. ndaw si ndaw si. waaw waa ji itam yal na ko yàlla yërëm. amiin xaar ko aljara firdawsi. amiin yàlla jéggal. en tout cas en tout cas daal mu ngi noonu. en tout cas daal mu ngi noonu ku fi ne alaaji bu ma foofu noo def. mi ngi lay ziar bu baax Aba. torop. dafa sensible daal. sensible daal. ñaari ñaari wax yëpp kii quoi. sensible na de. xul naa teqale de. ma ni li daal mooy. ay nit bu ñuy sëy. dañu sëy ci teraanga. bu ñu bàyyante. nañu bàyyante ku nekk dem tooñ baaxul. bu dee ku góor ki la. Mhm. tooñ baaxul. Mhm. bu dee ku jigéen ki la tooñ baaxul. baaxul. Mhm. waaw. ah tooñ baaxul de. moom bu ko envoyé loo jëm rek yow xam rek lu ndaw ngay def. Ah, baax na baax na. dëgg de tooñ baaxul de. ngeen bàyyante daal jarul jarul jël ci vidéo di ko envoyé kee tamit ku nekk daal na dem uti la. wallaahi waaw waaw. yooyu tooñ yu ndaw yooyu te li mu jur maa ko tooñ bi ngay wax muy jur lii. tooñ la mënta doon. billaahi waaw tooñ la. dañuy commencé ci tooñ mujjee ci tooñ ñaar bi. waaw waaw. waaw. te am na ñoo xam ne ñii li ñu mën a muñ ñee mënuñu ko muñ alaa jéegi noonu lu a koo ko jëm xam ne mën na ko envoyé vidéo mu muñ na koo xam peut être waa ji mënatu ko muñ ak na mu mujjee mm-hmm. am na koo xam ne tamit bi nekkoon moom mën na ko bañ a faale rek déggal abaa ne alaaji nga mu bëgg mën koo muñ abaa yow noo mënta muñ <laughs> wolof la ko a <laughs> <laughs> wolof lañ di àllaaji di waxtaan nee nañ di ko cedd cedd bi quoi <laughs> balaa ngay waxaat beneen bêtise <laughs> waaye <laughs> voilà merci beaucoup yéen ñi nga xam ne nag da ngeen sécuré du côté du bu fekkee da ngeen bàyyi ko deux voies amitié yi ci intersection bu bu fi nga xam ne mooy mooy xayma tey dara tey bàyyi ko deux voies bu ngeen egg see foofu la tax euh, tuuti ndax bu fekkee bàyyi ko nga rond point Gédo ba ba ngay egg xayma boobu la fil de voiture bi ndànk ndànk lay progresser foofu mën nga fa jël deux voies Massalikul Jinaan utal ANSF ak boobu la ci dégagé wala bokk nga jël à droite génne ji du côté du point e, ci rond point e da Carrefour bu liggéey ci Hampâté Bâ aussi faudra patienter au niveau du Carrefour foo ay mën a jógee rek da ngay taxawee su ko defee aussi yéen ñi ko mun ngeen progressé hôtel yi Hissène Blaise Diagne wala boog ngeen progressé hôtel Canal 4 se dégagé loolu aussi mën nañ jël ak mu jaare face hôtel yi deux voies face yi jëm fi nga xam moom mooy rond point bu Sam foofu la aussi ça circule tranquille en ce moment El Hadj. jaajëf to. da ngeen a fàtte seen carte gab da ngeen war a yónnee xaalis ci nu mu gën a gaawee bul jaaxle express cash moo ngi fi ak application Ecobank mobile wala dièse 22 mën ngaa dugg ci express cash defal sa bopp code buy mën a tax nga génne xaalis ci lu gaaw si suñu ñetti junni point express wala ci gabu Ecobank yi ci zone UMOA ak nu xaalis bi ngay génne mën a toll 1 pour cent dong la lay dikkee ak Express Cash lépp daal di yomb Ecobank la banque panafricaine 29e édition de la foire international de Dakar du 6 au 25 décembre Aztec mi ngi leen di jox daje ci biir foire internationale de Dakar le lu jëm ci électroménager boo ñëwee ci biir foire bi ci entrée pavillon Sénégal jano ak esplanade bi nga fek ñu ci aven électronique ci ay njëkk yu xéewle fii ba le 25 décembre bénéficier leen ci moins 20 pour cent ci seeni achat woo ñu gaaw ci 77 550 61 61 wala 76 017 57 57 bépp produit Aztec dañ ko garanti un an suñu service après vente numéro baa ngi xam nga ni kon làqatuwuñu 77 856 36 19 Aztec Americans Technology. kooku lu baax kaay bi jox ci kan moo ne. succès de Jollof Chicken kenn mënu koo expliquer ci réew mi ñi jàng marketing yëpp ñi ngi toog di xalaat ni ñuy expliquer le succès de Jollof Chicken au Sénégal jolof Chicken ñu ne ndax cafka gi la gaa ñi jaaxle lool ñu ne ndax niñ ko disposé la gaa yi jaaxle lool ñu ndax service bi la gaa yi jaaxle lool ñi jàng marketing yëpp étude de cas yi ñuy def ña ngi koy def ci Jollof Chicken ñu ne succès Jollof Chicken daal moo jaaxal réew mi ni succès Facebook ni succès Twitter ni succès WhatsApp ni succès Snapchat ni xale yi def Snapchat nap ñu ne vendredi 3 ci la ñuy inauguré Jolof Chicken bu Tiwaawan vendredi 3 décembre Jolof Chicken bu Tiwaawan vendredi 10 décembre Jolof Chicken bu Louga waa Louga loo lu mu yaatu yaatu yëpp ñetti koñ laa ci xam Alceri montagne ak Kër Serigne Louga waaye Louga ak li ko wër nee nañu Jolof Chicken la ñu jëm le 10 le 17 nag ñu daal di ñëw Medina Rue wa waa Medina ne xam ngeen ni Rue moo jël ndam li ci William Ponty xam ngeen ni Rue 6 moo ñëw nekk léegi Champs-Élysées 6 moo xew ci jamono Médina rue 6 loolu kañ la mbokk yi le 17 ah mbokk yi Jolof Chicken a noonu succès baa ngi noonu Jolof Chicken nag vendredi 3 Tivaouane vendredi 10 Louga vendredi 17 Médina rue 6 cey Jolof Chicken loo sax mi mu neex. ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. man de gis naa fu mucc ayib ci biir Dakar. gisal naa cité émergence très accessible dama bëgg ci espace vert fi ñuy foowee Adowa yi accident Adowa bienvenue hello hello hello hello voici le cadre idéal Adowa enfin Aloha est si leen si seen cité de seen appartement F3 F4 F5 lu ko dalee 36 millions 500 mille ci 33 822 42 32. fin d'année bi Tecno mu leen di jagleel promotion ci série Pop 5 Spark 8 ak Camon 18 waaw waaw ci li ko dalee 1er décembre ba le 31 décembre ngir bokk ci promotion bi yomb na jëndal benn smartphone ci série Pop 5 Spark 8 ba Camon 18 ñu jox la carte bi ngay xool sur ngir am ay surprise yu amul fenn ay chauffe-eau électrique ay moto téléphone Tecno ak yeneen i ngañaay yu takku teg si leen ñu fii ci suñu village Tecno yi ci fin d'année bi képp kuy liggéey liggéeyu expert comptable ci Sénégal te bokkuloo ci kuréel bii di ONECA ordre national des experts comptables et comptables agréés yaa ngi jalgati yoon te loolu mën na laa yóbbu tëdd kaso ñaari at ba pare fay amoon bu toll ci juróomi million yow mi commerçant entrepreneur wala sax chef d'entreprise na nga xam ne liggéey ak comptable bu bokkul si kuréel bii di ONECA mooy sàggane sa liggéey te it daan yoon teg si kaw comptable boobu dina tegu ci sa kaw yow mi ko dénk sa comptabilité mat a bàyyi Et dans des infos soporifiques, sur un ton ennuyeux, le présentateur assommait les auditeurs. Oh Pardon. Faut d'abord que je prenne une gorgée de ce Fanta-là. Et c'est ce qu'il fallait C'est clair J'ai avalé de la lumière C'est une explosion dans ma bouche Ces minuscules à la saveur d'orange coupent et décalent dans tous les sens <clears throat> Retour à l'actualité. Et place à la météo. Comment le ciel sourit après avoir pleuré par un arc-en-ciel <laughs> Fanta, vois la vie couleur. daara yi. madame Ndiaye. ndeysaan. daa daa daa daa daa day cible benn daara dajale sas tuut as tuutam sama tuut tuutus mhm. mhm. ah, defal ci xale yi ay ay ay ay ay ay ay yu am solo kii mhm. moom ma dellu soit si ba gën koo yaatal lekkatu daara yi incha ay vêtements ay chaussures dara matelas ah, ay pompe d'eau équipement ah, denrées alimentaire ak matériaux de réfection yu mel noonu consultation euh, gratuite 30 décembre 2021 consultation général ak ay jumtukaay ci wàllu paj tudde ko lekkatu daara yi madame Ndiaye waaw góor waay waaw góor madame Ndiaye yàlla fay seen quartier maa ngi lay nuyu yaa maam yaa seen quartier Cambérène 1 sàcc taksi Cambérène 1 seen dëkk suñu dëkk dañu fa sàcc taxi def na lu rëy de taxi bi ki ka moom kañ la sàcc amee fit noonu ci Cambérène Mbacke Mbaye la tudd ñemewu ñu fa woon dugg de alaaji ay quatre heures matin Mbacke Mbaye man Mbacke Mbaye mi xaw ma ko. sàcc taxi bi DK 29 97 Y. am na Mbacke bu ma xam de rakk ñoom Ali Mbaye. sàcc nañu taxi am de. ah Mbadou Mbacke moom mi fréquente ñoom Issa Laye ah, mécanicien sama xarit bi ne Italie. Mbacke Mbaye mi sàcc nañu taxi am de. ah du Mbacke ah Mbacke boobu xaritu Papa Ndoye la di. Cambérène ngoog ko sàcc wawul wawul Papa Ndoye Kaaw. <laughs> Ah, déedéet wawul Papa Ndoye Kaaw. ah Papa Ndoye xanaa du Mbacke meen. sàcc nañu seen taxi de. bu ñu sàccee dañ ko sàcc bu ñu sàccee taxi Mbàkke sàcc nañu taxi euh, taxi Papa Ndoy. loolu dëgg la kay bu ñu ah, sàccee taxi bu dee Mbàkke bi ma xam la Mbàkke mbay bi ma xam xaritam la. bu ñu sàccee taxi Papa Ndoy. sàcc nañ sama taxi sàcc nañu sa dépense. bu ñu sàccee suñu taxi sàcc nañ taxi des médias. jaajëf ñool ñool ah on est lié nag alaaji. on est nag. on est nag. duñ ko nangu. ah na taxi Mbàkke bi feeñ. <laughs> duñ ko nangu de na taxi Mbàkke bi feeñ ma ne. en tout cas boobu yow yow yow kii Euh, Almantulaay. Hmm. ku ko gis na woote 77 641 95 59 Mantulaay xamu numéro bi. non non xaw ma numéro bi. Mbacke Mbaye mii dëkku seen koñ. Mbacke Mbaye man de am na Mbacke Mbaye bu ma xam bu am taxi tamit loolooy problème bi teg ko xaritu Papa Ndoye la. seen ah! la ñu sàcce taxi bi. Ah! te Mbacke Mbaye day bëriwul. foofu seen koñ dey la ñu sàcce taxi bi. boobu Mbacke Mbaye. waaw mën naa am du moom tamit beneen Mbacke Mbaye la. nan taaxib lak ci kanam tuuti naa ci xam dara alaa ñu entamé beneen tës bi deuxième bi. deuxième ñu ah, ñu kii ko. tey Touba lañ jëmaat. mais fi nekk nii mantulaay fi nekk nii yow yow yow Mantoulaye. Mhm. di askan wi am ci yow yaakaar yëpp. yëpp mhm. yëpp yëpp yëpp. boo ko jooyte ni ma jox ma ni numéro mantulaay amul benn pexe ci ndox mu ñuul mi ci dëkk bi. <laughs> nga xam ni kenn xamuñu ci sutti xamuñu goudron la xamuñu lu ñu jàmb la xamuñu luy bale ci suuf la moom daal xeeñ na ñuul na fuur na. alaaji léeg-léeg damay buure ni Moussa ku may seet fii ak 15 jours nee ko dama fees. te fi mu ne nii nag foofu laa toll. te ndox mi xellee ko Mantoulaye. eau potable la. eau potable. loolu la ñu wax ñoom. eau qualité. loolu lañu wax. waaw eau quantité. ah nee na dafa lëndëm rek mais mënees na ko jëfandikoo. ah waa waa seen eau seen contrat est-ce que am nga benn contrat boo signé ak waa seen eau bu dul eau potable. Ah, mais bu ñuulee nag lii nag moom du potable. o o o bu ñu roosee signé ko signé ko yow da ngaa signé waa waa waa o o Sagu da ngaa signé waa Sine o o Fobéré waa Sine o seen contrat bi li ci nekk mooy eau potable léegi nag ndox mu ñuul mii moom ngeen di nan moom ngeen di sangoo moom ngeen di fobeere ndox mu ñuul mii nga xam ni boo ko joxee mbaam xuux du ko naan xaj bi nga yor ci kër gi du ko naan ganaar du ko naan pittax naanu ko. fas bëgg ko mbaam du ko xeeñtu ndox mu ñuul moomu lañu leen di jaay njëg gu cher te tudde ko eau potable xam ngeen ni ñoom duñu ko naan de billaahi duñu ko naan yàlla mi ñu tiim xam na ni ndox mi xele ci robinet yi duñu ko naan tësal la ca potable bala tësal la Touba la ñu jëm Touba nag euh, di jaajëfal Xaadim hmm. di ko jaajëfal bu baax a baax ak Abdoulaye Fam <laughs> dañoo fekk day ñoo fekk benn waay. Uh-huh. Euh, nee ñu mu faatu. Uh-huh. Euh, ci ni ma ko déggee. Uh-huh. du nationalité sénégalaise. fekk nañ ko ci néeg. mu faatu faatu ba nag xamuñu lu ko waral. toog nañ ay fan kër ga commencé am xet. ban dajjee fenêtre ba ñu ngi ko fekk mu sëmp ñaari óomi ak ñaari loxo yi. Ah? maanaam ci position boobu lañ ko fekkee mu mel ni ku sëgg. mel ni ko juutu quoi. mel ni ku sëgg def nii. sëgg taxaw. sëgg ak ak ak ak tànk yeeg lii sëgg. non dafa sëgg. sëgg rukkoo ak sëgg sujjoot sëgg sëgg boo xam ne da ngay teg loxo say wóom sëgg bu say loxo di nekk ci suuf. loxo yaa dafa sëgg waaw kay position boobu la daf maanaam tànk yeeg yëpp ci suuf mu sëgg. Ah, waaw comme bu ñu daane ni ñuy sëgg. waaw xam naa dafa nekk nag ci coin boo xam ne dafa xat. kat appui quoi munu munu munu munu munu nërmeeloo fenn. kat appui quoi. waaw ndax nee na ci benn ruq lañ ko fekk mu sëggee position boobu. faatu ba tàjjee farit ba mais nag commencé woon na di décomposé wu te xamuñu lan moo waral faatu bi euh, ñu teewlu ci rek euh, xaadim ñëwaat. ma mën a wax de dëkkandoo bu bu bu maandu la. te yàlla rek tax nag ba mu fi dëkkee léegi na ñetti at. waaye su la rombee dina ma nuyu. maam jaara ça va. Boubacar da ngaa def ma maa ngi fi. su may fekkee may bale su mu ne ba nga bale bale bale bale rek très ah, set na boobu déggul olof baax musta wax ak man na baa jërante xadim yi sama doom bu ndaw bu su ko romb sa daan na ko musta bi ndax yow Boubacar sama doom bi dama waaw may ma ko comme yee may ma ko benn bi sax muy tonjee sono mi muy pause fii tati yaa sax yooyu ci ba ëtt bi fii xale yi toog mu ñëw ndeesoo na daan na ko defal ma nii nii xale yëpp yuuxooloo jànq ji ma ne ko fi ñëwee daa bëgg a dégg olof day leen ni maame ni fi nii su robinet bi tëjee ñaari sax mu tëj day taxaw ma ne waaw mu ne ma robinet mi ngi xelli ma ne ko waaw rotal loolu ngaa root ba pare mu ne xam na loolu lan la doon liggéey day jàngale day jàngale am na ko fi daan na ñaar xale gu fi daan ñëw nag kenn ko bàyyi na ba a daan ñëw te koo taabal ja mu teg su ñëwee moom mu jël bidon bi son boobu daal cay toog la sarbetam bi daal cay toog mosulaa wax fu mu jógee moom. déedéet jaar koo tëdd di feebar wala yooyu. déedéet mosuma koo a tëju. déedéet déedéet déedéet. yow feebar mënut a ñàkk moom. wala léegi nag moo ngi kii bi naka nga ko naka nga nemmee. ni ma ko jàngatee. man gëj naa kaa gis moom. xaw ma suuru ajjuma la. xaw ma waaye man gëj naa kaa gis moom toll na ci man ay juróomi fan moom lu ajjuma daal yàpp naa ne ajjuma laa gis suba teel gis ko mu toog foofu di fóot ci suba bu ndaw bi suba boobu fóote weer ñaari jiin ak euh, ñaari mask képp ko hmm. loolu moom nemmeeku naa ko ci moom waaye depuis boobaak léegi moom saatuma ko moom paa bi fi nekkoon nag paa bu sant Jàll dafay nekk paa bu njool dafay nekk léeg mu jox ma sa portable bi na ma chargé ma ko moom itam yenn saa guddi mu jox ma portable bi na ma chargé ndax fi mu nekk amul courant léeg mu ne ma chargé ma ko chargé buy xëy maam jaara ma mu jox ma jox ko mu daay dem jàmbur la seq ak man même nit ñi la jàmbur la seq ak ñu fi ñëw di ko seet déedéet ay xale yu góor daal ñëw mu jàng wala mu bind léeg-léeg ñooñu liir mu jaay ñu daay dem paa bu sant yàlla moom dafiy ñëw moom am fi weer wala ñaari weer paa bu njool la nii dafay ñaan fa gis naa indi di dafa ñëw du leen daal da ko seet na ko ñaan seet noonu waaye mosuma faa dugg ba tey na ko ñaanal yow loo yëg li ma yëg gis ah, ni moom ñu ngi li ma yëg gëj naa koo gis xet gi moom xeeñ na moom ñaar démb ak tey moom nit mu ta nooyu kër gi moom yaa may dégg man maa xëy di bale kër gi xeeñ na lool bale gaa ngi ci ruq ba fee la jël sama balay mu xeeñ waaye dama na kañaa fi dee man loolu mën na ah kër gi da xam naa moo lii ba demee kañaa fi deeti waaye nit moom mënut a nooyi moom ba heure añ mu gën a xeeñ ma añi ba ñëw toog sama yaay ba ba ñu bëgg a noo taaku sax ma ne xaaral ma ñëw sangu ji mais si gars romb ñi ñuy toog sax suba baa ngi ne taa yaa ngi koy gis ma jël sa rek dem wan a wax munoo romb foofu man ah man fii li muy xeeñ moom garaaw na de daal si laa génne daal di ñëw daal di ne kii eh, ñoo gën a góor yi Ibrahima ma ne ko numéro Boubacar eh, ku ko ko ci am woo ko ba xam ndax man gañ naa kaa gis. te fii ni muy xeeñ waaw sama xel dafa ñaaw suñ tuubaar xam ne yàlla tax man ma dama ne fii boo yéegal ci plan bi rek munoo noyyi ñoom ñii ñëpp jóg ñu ànd kii la ne ah, lii kay du xetu kaña kee toog ne kee taxaw daal lii du xetu kaña lii Boubacar boo dee dafa faatu ma ne ko am ah, na gëj naa kaa gis. xaaral ah, ma dem Alane Ndiaye yor na numéro ndax Alane Ndiaye dafay fréquenté dafa toog ak Gédé Ndiaye mi dinaa gis mu fay toog léeg-léeg guddee xëy na yoruma numéro Boubacar yi laa ci xam xaw ma santam it nag xaw ma dëkk xaw ma fu mu cosaanoo waaye. ci li ñu dëkk daal dëkkat bu sincère nag amut ak kenn xaar ma yàlla man boo ak sama njaboot nuyoo nañ seeq waaw bi ñëw ba ma wootee ñoom ñu taxaw fi ci buntu euh, kii bi buntu néeg bi ñu ko yée fii koy xeeñ na ci lañu wiiree ñoom ñëpp na na lii lii boobu bu bëkka bootu est-ce que faatuwul di bii ci la kee fiqi fiqa pante bi xeer bi daay dajjee ko ak ko ci gannaa noon mu sukk mel na lu su jonkam teg bopp bi loolu tax man sax ma yëre sax damaa daay daw ma xam nga ñemewu ma yaa ne woo leen sappoor loolu la loolu laa ci am moom ñaaw njort yi nag dëgg ñaakaa gi te xeg gi moom xeeñ ubbaale ko xeeñ xeeñ na moom xam ne moom mënoo nooy ci gër moom li ma yëg mettit rek nag ak tiis ak jaax xam ne yàlla rek mooy buur kenn mënum nag saa borom rek moo man saa borom moo ñëw ak dogalam rek laa jàpp ah xaw ma fu dëkk de moom ifaan yéen daal xam naa ne moom làggkat la waaw Sylla bii dinañ ñëw bu waxtaan ak Sylla moom moo wax Sylla sëriñam moo wax Sylla nu mu sant moo wax di waxtaan ak Sylla daal waaw ak Gédé Ndiaye mais waaye man léegi moom wax dëgg yàlla ko ci moom ay suñu dëkk ak yooyu hmm, déedéet déedéet déedéet mu loolu mekke da lay na moom tooñ nga daay dem ba mu dugg si ko fekk ni kati bi set eh, maam jaar comme yee bale bale bale ret daay dem waaw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko yi gën a kawe doy na waar daal après noonu quoi ndeysaan doo xam lu ko daal mu faatu ci position boobu amaan dafa am malaise wala dara te kenn yëgul ñàkk ci bakkanam yal na ko yàlla yërëm jéggal ko atte ko ci yërmandeem xaaral ko aljana yi gën a kawe amiin yaa réew maa ngoogu de kenn xamul kan la kañ la fan la ak naka la walaay buñ ko xamoon gën a jekkal toogaay yi ndeysaan waaw waaw yàlla de moom noonu noonu rek rendez-vous la boo xam ne doo ko manqué mukk ci àddina te yow xamoo rendez-vous bi ban heure la ban jour la xamoo ci ban moment nga ciy dem xamoo ci dara dara xamoo ko ci te rendez-vous bi leer la ni yow rendez bi doo ko manqué yow leer na ni rendez-vous bi yow doo ko manqué hmm. Sidi Konté ko manqué de dee te boo seetee ba seet na alaaji mooy dëgg. de doom mooy dëgg di. moom doo ngay dëgg. suñu tel tel jeeg. suñu wax jeeg. Mm-hmm. suñu solo beeg suñu simbiku bi. ça va bien. suñu dem beeg suñu dikk bi. ñaxtu mburu mu cher ndox mu baaxul. lépp fi lañ koy bàyyi. lépp lépp lañ koy bàyyi. maa ngi euh, lu ñu am fi lañ koy bàyyi. lu ñu am mu néew mu bari fi lañ koy bàyyi. Ah. yow dèjà man xuma ki ma waxal kan la nga may attaqué nii doo bàyyi ma ah. <laughs> ah, euh, jox sama mhm. <laughs> ko ñetti fan bàmmeel dafa war de. ak a baax Mantoulaye. Mm. daf ñuy moytul genre yi tooñ yi. daf moytul genre yi tooñ yi. waaw tooñ moytul teg suñu moroomu jullit lu mu àttanoon wax ko lu mu deful. tooñ yi tooñ yi. fa metti démb la ma benn waay woo ndeysaan dañ fi mës a jàllale tësam dafa doon liggéey ci benn société yóbbu fa ay mbokkam ñu def ko fa lañ ko fay def ba bëcc dafa muuru jamono jii. mu ne ma ba ngeen di wax ci ki ñaan ak soxor yaak El Hadji dama toog jooy xalaat sama situation maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax a baax waaye su ma xalaatee lool ma dal yépp te muy ay pexe ay nit. ndax dañu ma soxore. damay jooy da ngeen wax rek ma jooy ndeysaan da ko wax démb sama yaram bi simbeeku. nga xam ne wallaay coxorug nit mën na ko yóbbu fu ne. Mantoulaye soxor li muy yàq ci àdduna moo bëri ak a bon ak a bon coxor ak a bon eh, yàlla ci yàlla musal waaye li muy bon bon bon tooñu ko gën a bon xam nga yow am nga coxal iñaane nit ki bëggoo mu yokk bëggoo mu am yaa ngi koy fexeel yaa boole mm-hmm. yaa ngi koy nettalil yaa ŋàññ ci lu mu yëg ak lu mu yëgul mm-hmm. waaye bu ci action amee muy wax ak jëf rek plus soxla ga lay nekk ndax day nekk tooñ mm-hmm. xam nga alxasad ki ñaan ci xol yëg-yëgu xol la yenente bi nee na garaawul iñaan leen bu leen neexee mais ni ngeen xam ne yàlla bëggul lépp lu leen ko defal alxasadu yakulul imaana kama yakulul naaru alxataba hmm. kiñaan day lekk ngëm yàlla comme ni matt di lekk comme ni safara di lekke matt